rek ñu ngi nuyu sëñ Moustapha bu baax. ndax suñu xarit la. ndax nee na xaritam la. Euh, Serigne Mountakha ñu njëkk a boole. nee na Serigne Mountakha moo leen njëkk a boole. Euh, boobu ba léegi nag. nee na boobu ba léegi nag. ñu xam ko bu baax. ñu xam ko bu baax moom sëñ Moustapha Lakaram. xam taxawaayam. xam taxawaayam. xam taxawaayam ci yoon bi. xam taxawaayam ci yoon wi. xam taxawaayam it ci administration. xam taxawaayam it ci administration. jàpp naa ne fii ci région de Diourbel. ci bokk na ñi nga xam ne ñi bokk na ci ñi nga xam ne ñii. bari na lu ñuy dimbale administration. bari na lu ñuy dimbale administration. territoriale. territoriale. dalee ko ci gouverneur. dalee ko ci gouverneur. jëm ci préfet yi. jëm ci préfet ci sous préfet yi. jëm ci sous préfet yi. donc ñu ràññee woon ko. nee na ñu ràññee woon ko. bi ñu nekkee ministre de l'intérieur. bi ñu nekkee ministre de l'intérieur. tey nag. tey nag. dañu fee ñëw. dañu fee ñëw. gannaaw bi ñu ziaree. ginnaaw ba nu ziyaaree. sëriñ Cheikh. sëriñ Cheikh. waxoon ko ne danañ ñëw ci tool yi. waxoon ko ne ko ñu ñëw ci tool yi. donc xool. daal di xool. liggéey bi nga xam ne bii. liggéey bi nga xam ne bii. moom la fi moom la fiy def. moom la fiy def. te it. te it bu ci nekk. barab bu ci nekk. am ay jawriñam. am ay jawriñam. ñu ànd ak suñu. xarit Cheikh Amar. mu ànd ak xaritam Cheikh Amar. moom it kenn ku ne. moom it kenn ku ne. xam na. xam na taxawaayam. taxawaayam. ci lépp loo xam ne lii. ci lépp loo xam ne nii. Eh, dafa bokk ci njaboot ak sëñ Saliou. dafa bokk ci njaboot sëriñ Saliou. waaw ñu ànd également ak suñuy collaborateur ñuy ànd ak seeni collaborateur yoo xam ne ñoo ñu jàppale ci liggéey bi. yoo xam ne ñoo leen di jàppale ci liggéey bi. xanaa mu wax ci kenn rek. ci kenn rek. Omar Sané directeur agriculture. muy Omar Sané directeur agriculture. ñeneen nit ñi ngi fi. ñeneen nit ñi ngi fi. ñu ñëw. ñu ñëw. xool. xool. li taalibe yi. li taalibe yi. liggéey. liggéey. ci nawet bi. ci nawet bi. ah jotuñoo dem fépp. nee na jotuñoo dem fépp. ndax loolu moom. ndax loolu moom. benn fan nu cee doy. benn fan munu cee doy. donc am na lu ñu visité. nee na am na lu ñu visité. ci ak ànd ci ak jëwriñ yi. ànd ci ak jëwriñ yi. ak sëñ Abo. ak sëriñ Abo. mu sëñ Cheikh. mu sëriñ Cheikh. mu sëñ Saliou. mu sëriñ Saliou. ak aussi suñu doom ji. ànd ak seen doom ji. sëñ Amadou. sëriñ Amadou. Ndiaye. Ndiaye. moom sëriñ Mbacke Ndiaye. moom sëriñ Mbacke Ndiaye. donc visité nañ tool yi. nee na visité nañ tool yi. am nañ ci mbégte. am nañ ci mbégte. gis nañ ci benn tool bi. gis nañ ci benn tool bi. li nga xam ne lii. li nga xam ne lii. ah jëwriñ bi. jëwriñ bi. won nañu ko. won na leen ko. ci li ñu récolté ci dugub. ci li récolté ci dugub. li ñu góob ci dugub ci li ñu góob ci dugub. ak gerte gi nga xam ne gii. ak gerte gi nga xam ne gii. xaw naa yaatu lool. xaw naa yaatu lool. ndax dem na. ndax dem na. ci juróom benn téeméeri hectare. ci juróom benn téeméeri hectare. ñu koy waaj a deqi. ñu koy waaj a deqi. loolu nag. loolu nag. ci benn tool la rek. ci benn tool la rek. ñu rafetlu lool. ñu rafetlu lool. li nga xam ne lii. li nga xam ne lii. Serigne Cheikh. Serigne Cheikh. def na ko fi. def na ko fi. gannaaw. ginnaaw bi fi Serigne Saliou. bi fi Serigne Saliou. jóge jógee. muy liggéey bu rafet. muy liggéey bu rafet. ñu jàppit ne. ñu jàppit ne. liggéey la boo xam ne bii. liggéey la boo xam ne bii. war nañ koo mën a jël comme royuwaay. war nañ koo mën a jël comme royuwaay. ci wàllu mbay. ci wàllu mbay. te it ñu xam ne. te it ñu xam ne. Euh, moom mii. moom mii. am na sax. am na sax. ci suñu gis-gis. ci gis-gis seen gis-gis. yeneen liggéey yoo xam ne yii. yeneen liggéey yoo xam ne yii. war na koo gën a mën a lëkkaloo. war na ko gën a mën a lëkkaloo. ak état du Sénégal. ak état du Sénégal. pour que ñu gën a mën a yokk. ngir ñu gën a mën a yokk. li nga xam ne lii mooy production. li nga xam ne mooy production. agricole agricole. rawatina. rawatina lu jëm. lu jëm ci. ci li nga xam ne lii. ci li nga xam ne lii. dugub la dugub la. ak mboq. ak mboq. ak yeneen xeeti jiw. ak yeneen xeeti jiw. yoo xam ne yii. yoo xam ne yi dañu koy faral. dañu koy faral. di jëfandikoo. di jëfandikoo. jëfandikoo bu bari. jëfandikoo bu bari. kon sëñ loolu moo doon tànk yi kon sëriñ Moustapha Lakram Mbacké ministre Aly Ngouille nee na loolu moo doonoon tànk yi ñu xam ne yaa ñu xam ne yaa ngi fi ñu nañ fi ñëw ñu ne nañ ñëw ziyaare la ziyaare la yow it ñu jaajëfal la yow ñu ñu jëfal la ci taxawaay bi ci taxawaay bi ndax xam nañ ndax xam nañ li nga xam ne li yaa ngi koy def li nga xam ne li yaa ngi koy def ci wetu sëriñ bi ci wetu sëriñ bi kaddu yi loolu rek la ministre nee na kaddu yi loolu rek la muy kaddu cant rek muy kaddu cant rek ak kaddu ak kaddu ngërëm ak kaddu ngërëm jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke